et si c'est nous. yes <laughs> Gana Gana Gana xale yi xale yi génn nañu xale Gana lii lu mu doon. lii c'est juste incroyable. Euh, deux mille dix deux mille dix neuf nañ ko mais bii moom defe naa am quoi. da ngay tiit sax da ngay bañ gars yi gaañu wala affaire yooyu mais dañu kontaan trop xamoon nañ ni nii rek la mënoon demee. dañ ko mérité dëkk bi li ma fi manqué woon. dëgg la mais lii lu muy def si seen si seen carrière si seen suba. non lii moom kenn mënu ko expliquer c'est c'est des trucs qui arrivent très rarement du ñëpp ñoo koy dund toon ñun tey dañoo am chance dund ko dañuy sant yàlla bu baax di remercier yàlla di remercier sénégalais yi ñu supporter yëpp tamit. gis nañ la jël coupe bi ànd ak sa doom foon coupe bi namoon nga njaboot gi namoon nga Sénégal. parce que dafa amoon solo trop mu dund lii mu gis lii parce que dañuy nekk bitim réew foog suñu doom tamit xam li xew Sénégal xam seen seen liggéey affaire yooyu moo moo tax ma indi ko tey mu gis lii yëpp dafa am solo quoi. a allah kon nag Gana la fête continue. la fête continue. mais oui mais qu'est-ce que tu dis aux aux Sénégalais de la diaspora de Londres de Paris de de de de de de Munich. non xam naa ne ñoom ñëpp tey nekk fii mais yàlla ni la dañuy wax bu ñu fàtte fi ñu jugee des fois dañuy dellu Sénégal xam ne fii mooy suñu dëkk lii rek la ñu am nit ku nekk sa dëkk nga am ñun suñu couleur dëkk la ñuy défendre moo tax tey ñu def lii di leen remercier bu baax tamit xam nañu même buñ fi nekkul tamit sen xol mi ngi fi. am na lu ñu seetlu nag gànna sa diggante ak Sadio Mané xaw ma ne yéen a bokk nekk xaw ma nu mu demee noonu waaye gis nañu yéen ñaar da ngeen di waxante ay mbir ci suuf di waxante ay dëgg ci suuf am na daal comme ay na man Sadio Cheikhou Ismaïla Salou Ciss ak Koulibaly ñu ñëpp dañ fi yàgg surtout man Sadio ak Cheikhou depuis Jeux olympiques ñoo ngi ensemble kon tey am na benn relation ñu créé dafa mel ni ay frère lañu te dañuy waxtaan bu bëri yàgg naa ko wax bañ nekkee Jeux yooyu ma ne ko Sénégal bu buñ demee ba gagné Coupe d'Afrique incha allah rabi yooyu yaa ñu koy gagnel parce que dëkk bu nekk da nga am sa am sa joueur phare am sa joueur boo xamante ne moo lay mën a gañaloo trophée te saa tey niveau boobu la toll macha allah dama koy ñaanal yàlla mu continuer porté na équipe nationale bi xam na léegi niveau fu mu toll wane na ko si kan bi jël na ay responsable dem dóor penalty yombul raté si match bi ñëw dugalaat ko si tiro biti kon dama koy encouragé di ko félicité wallahi dama kontaan trop pour moom dama ko koy wax tout le xam na ko saa yi tey bu ñu gañee yaa ñu gañaloo match bi te moo xam na ko foog muy jël responsabilité yooyu noonu tey tey moom la ñu wan gañaloo ñu kan bi macha allah. te moom da lay déglu dafa mel ni Sadio day bàyyi xel bu baax si li koy wax. non daf may déglu bu baax parce que maa xam yàgg nañ yàgg nañ xam na ni tamit man fu ma yoree bal si terrain moom laay wër c'est souvent adversaire dañuy comprendre loolu dañuy jéem a tëj relation boobu man xam naa ni ay joueurs comme Sadio Ismaïla Sarr Crépin c'est des joueurs qui vont nous faire gagner des matchs. nous on est là pour assurer leurs arrières moo tax des fois bul xalaat parce que des fois pression day bëri si moom day bëri si ñun tamit du yomb moo footballeur tranquille ñun li si ginnaaw Gana en français qu'est-ce qui fait votre complicité avec Sadio Mané on voit dans les images que vous lui parlez beaucoup et il semble vous écouter. Sadio c'est comme un pour moi ça fait longtemps qu'on qu'on est en équipe nationale depuis C'est pour ça qu'il m'écoute beaucoup parce que je le connais très bien. Je lui dis souvent que si on gagne la canne ou si on perd des matchs, c'est de sa faute. Et si on gagne la canne, ça sera grâce à lui. Parce que c'est des joueurs leaders de notre pays. C'est un joueur comme les Messi, comme les Cristiano Ronaldo pour notre pays. Et si on a besoin de lui pour gagner des matchs. Aujourd'hui, il a montré à la canne, il a raté un penalty pendant le match, mais après, il a été courageux, il a pris le penalty qui nous a permis de remporter ce trophée. Je le félicite et je suis très content pour lui. C'est comme un frère pour moi. C'est pour ça que quand je lui parle, il m'écoute. Vous êtes aujourd'hui plus que fier Aujourd'hui encore plus. Parce que a toujours rêvé de ça pour notre pays. C'est ça qui nous manquait, un trophée. on marque l'histoire du Sénégal et ça sera écrit à jamais parce qu'on est les premiers qui ont, remporté ce trophée, dans notre continent, dans, notre pays. on est très très fiers, mais Inch'Allah, on espère que ça ne sera pas le seul et il aura d'autres qui vont suivre. Beaucoup se demandaient si les mots du président qui vous a lancé un défi, qui a dit une finale ce n'est plus votre gloire, il faut la coupe. Est-ce que ça retentit dans, dans, les esprits, dans les vestiaires, dans les chambres À vrai dire, il n'avait pas besoin de tenir ce discours-là, parce que nous, on était déjà motivés. Mais ce discours nous a encore plus motivés. Parce que quand on vient en équipe nationale, c'est pour gagner. Et on de savait qu'on pouvait le faire. En on est passé à côté. Mais cette fois-ci, dès qu'on se retrouvait, on a dit, les gars, cette peu importe la manière, faudra rapporter la, la Coupe au Sénégal. Avec le discours du, du président, ça nous a motivés encore plus, surtout les nouveaux, surtout les jeunes qui viennent d'arriver. Ça les a motivés encore plus. Et c'est vrai, c'était une petite pression, mais c'était une pression positive pour nous parce que on savait que tout le peuple était derrière nous et que le président était derrière nous. Et on vous a vu lui remettre le trophée. Vous l'avez organisé euh, entre anciens, quoi, entre cadres de l'équipe. C'était important euh, de marquer, l'histoire. C'était important de, marquer ce moment-là en lui remettant le trophée. On, nous tenait à cœur parce que personne ne jamais fait au Sénégal. Et donc il, fallait marquer le coup. On a décidé de le faire de cette manière-là. Eh, c'est quoi ça, ce béret-là Ghana est devenu militaire ou quoi c'est mon cousin qui est dans l'armée, dans la gendarmerie, que j'ai vu à l'aéroport, qui qui m'a remis ça et je suis très très fier de porter ça parce qu'on a grandi ensemble à la Médina. Et aujourd'hui, il est fier de me voir à ce niveau-là et moi aussi, je suis fier de le voir de l'autre côté, de défendre notre pays. voilà kon beere gànna bi xool leen ko gànna ku la jox beere bi. jaajëfatee sama cousin moom ko jox ki am te ñoo màggandoo ñu ngi tudd Souleymane maa moom ñoo màggandoo moo jox beere bi tey. affaire affaire maa fay day faj gerte bu mu jógee. donc kooku defe naa jeu gardien wu kii jeu beach co beach soccer bi moo ko génnee. affaire yi law moom moo ko créé duñ ko yónnee chaque fois ñun tamit ñu lawal ko quoi. waaw bojo bojo bi lu tax ngeen boole ko ci si seen wéy yi. parce que bojo bojo dañoo gis début compétition yu bëri saa yu ñu gagné loolu la ñuy way sama doom tamit def benn vidéo way ko après ñu gis ne affaire yi neex rek ñu topp ci. jeex <laughs> di nuyu waa Medina di nuyu ñëpp sénégalais yi nekk fépp si réew mi te ba léegi ba léegi Pape Madi ba léegi Pape Madi ñi ngi Yoff